avons ah, une stratégie bu Sénégal numérique 2025. mille 4 ans de décès, c'était bien que motiver davantage les acteurs de l'écosystème encourager les mais également wax les fi nga xam ne nous la bëgg ñu Nous aussi partagé un projet qui a été nga xam ne investissement mais également instrument ak outils yëpp yi nga en place pour accompagner aussi jeunes qui surtout ndaw ñi accaparer numérique donc def ko seen mbiru donc def ko mbiru développement mbiru soqaliku ndax xamnañ possibilité yi ne yépp ci biir numérique donc defe naa ni bis bu ne ñu ngi xol gis li nga xamni numérique mom lay indi ci réew mi ak li nga xamni mom lay doxé ci aduna bi kon dafa amone solo pour que jeune yi xam lolu mais également gis nañu ni ak grand prix bi jeune yi nga xamni yépp bokku nañu moy start-up bi nga xamni participer nañu moy à peu près téméri start-up ak fanweer ak juroom ñet participé nañ ci grand prix bi et defe naa ñi nga xamni ne ñoo gagné aussi am Chansou, chance le président de la république la scène invention te defe naa ni mën ni client bu président de la république naturellement nekk na lu am solo. ci DER 3 milliards de président de la république def pour accompagner jeunes génies ci mbiru innovation numérique ñi nga xam dañu am ay projets naturellement euh, prix ñi nga xam ni nañ au participer euh, grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique amoon nañu financement DER accompagnement DER c'est-à-dire que DER li muy accompagner instrument bi président de la république def am na njeexital finalité am na mën naa li nga xam ne taxoon nañu en place mu ngi koy dox aussi dañu ko gëna renforcer mais nee aussi ak jeunesse yi ñun ñoy wara a loy tax aussi président peut-être dem ba yokul enveloppe bobu dem ba peut-être ci 30 milliards milliards yi DER am

c'était l'occasion de inviter tous les acteurs de l'écosystème pour que l'Orientation xam président de la République nous jël améliorer renforcer Nous avons vu loolu solo mais également gis nañu engagement la motivation wu acteurs écosystème bi yëpp ndax plus de ñaar fukki panel nous vu ay réflexions solo am euh, panel est presque am plus de juróom fukki nit participer ay experts am ay réflexions solo solo Thank you.